بعد assalaamu alaykum wa wa barakaatu euh, comme niñ ko diggee woon ci jotaay bi weesu dañu waxoon ne danañ fi daje tey ngir jéem a jagleel jotaay bi ay laaj ndax jombul bunt bu yaatu bi nekkoon muy kitaabul imaan ci saxiixu muslim du ñàkk am ay mbokk yoo xam ne am nañ ay laaj ci li weesu xëy na la ñu am ay laaj yoo xam ne bëggoon nañ koo laaj te waxtu bi mayewu ko ndax du woon yaatu ñu ne woon kon nañ jagleel euh, jotaayu tey bi lu jëm ci ay question ak ay tontu euh, su ko defee su jotaayu tey bi jàllee nag insha allah ñu door xalaat ci ban téere lañ ciy teg wala gan fan lañ ciy teg su ko defee bu ñu yëgle jataay ba rek su boobaa ñu yëgle waale téere bi nga xam ne moom lañ fas yéene jàng insha allah euh, ni ñuy tàmbalee mooy laaj yi doon tontu am na ñett yu fi desoon yuñ bind yoo xam ne tontooguñ ko woon euh, yeneen yi ci def su ma tontoo ñett yi ba noppi euh, Omar doona jot li bi lenn ci ay mbokk yu am ay laaj juróom yu posé seeni question rek ñu jéem a tontu loolu tegaat ci yeneen juróom ba keroog waxtu wi jeex su amee ci diggante bi kenn ku la am laaj bu muy bind it su ko bindee indi ko insha allah ñu xool ci ban diggante lañ koy dugal laaj bi boroom dafay wax gannaaw boo xamee ne mi ngi feeñal ay cofeelam ak ñaanam yàlla nañu sun boroom tabaraka wa taala boole ak cofeel nun ñëpp mu ne lan mooy at tëb wàññi sikkim loolu moom dañ koo tere ala kulli xaal dañu koo tere yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu bàyyi sikkim moom santaane na ko moom ci jëmi boppam def na ko nit ñi ko doon def ci kanamam itam saxal na leen kon dañu wax ne ñetti xeet yi nga xam ne moo moom la ab atte di saxe yépp am na ci al qawl ak al fi'l ak iqraar wala taqrir ñett yooyu yépp daje nañ wax na ne def leen bàyyi leen seen sikkim yi wuute leen ak juif yi bu dee jëf moom ci boppam sallallahu alayhi wa loolu la jëfe ba ni mu génne àdduna bu dee saxal itam mooy ñi ko waroon ñépp loolu lañ doon def te kenn mës la jële ci moom digal boo xam ne bu wuute ak boobu la xanaa luñ ciy wax rek mooy yenn riwaayaat yi wax ne lenn ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain doon nañ def buñ nëbee seen sikkim am leneen lu des ci suuf ñu wàññi loola loolu ay riwaayaat la yoo ne sax na jóge ci lenn ci saxaaba yi ba yenn boroomi xam-xam ci lañ sukkandiku ngir wax ne loolu loolu dagan na waaye loolu man toujours damay wax ne suñ koy wax ñu yor ay kawar yu gudd ñoo tax ñu koy wax waaye bu dee ñu mel ne nun ñii moom jàpp naa ne dana néew nga gis ci nit ñu ñuul ñi koo xam ne sikki moom dana gudd ba bu su tëyee amaat leneen luy desaat ci suuf kon yooyu wax ñu mel ne nun tax ko jóg ci def ne jigéen joo xam ne maanaam waa joo xam ne dafa bëgg a takk soxna soxna soo xam ne it nee na ku am diine la ci ni ko waxe waaye nee moom ku góor ki ay bokkam dañ koo bëggal keneen koo xam ne moom amul diine te su tëkkul kooka ñoom mën nañoo tàggoog moom mën nañoo tàggoog moom maanaam ak bokkam mën na cee yàqoo la bëgg wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lim jàngale mooy ngeen takk boroom diine takk boroom diine kon soo gisee boroom diine kooku la ñuy jiital ci kum mën a doon su fekkee ku góor ki nag ay bokkam dañoo d'accord ca moom ca loola na waxtaan ak ñoom ba ñu d'accord ca suñ te d'accord mu xam ne góor moom ngir mu takk jabar lislaam wutalu ko li ñu tudde wàll maanaam wutuñu koo xam ne daal dañ naan bu dàkkoorut mënta takk jabar loolu jigéen moo ko am jigéen moom ay bokkam suñ dàkkoorul kenn suñu ko maye kenn mënta jaar si àll ba di ko may góor nag loolu sartaluñ ko ko na waxtaane ci bokkam ndax juboo gi moo gën ñàkk gee juboo waaye nag ñu takkaloo ko ku amul diine tam gis ku am diine koo xam ne ay mbokkam nangu nañ ko ko takkal loola moom du wax joo xam ne du taxaw la tàqalikoo gi muy wax it ngir ñu bàyyi ko ca loola loola mën naa ñàkk maanaam suñ ko jéemee bàyyeet moom su leen bàyyi wut bu yàggee lañ bëggoon ñoom duñ ko man ndax ki lay jéem a bàyyi ngay rafetal di jëm ci moom soo amee sa dara jox ko soo amee sa lu baax wax ko soo dajee moom nuyu ko soo amee sa waxtaan yow toog waxtaan ak moom kooku su la bëggee bàyyi du la mën a bàyyi waaye nag suñ na lee bàyyi naa leen nga ne leen yéen it bàyyi naa leen loolu mooy waral bokk ga dagg suñ ko daggoon it da def la loolu mooy tolloog fil man qataaka ki lay dog yow da ngaa war a jokkoo ak moom surtout ginnaaw mbokk la te da gëm ne jokk bokk gi ci jaamu yàlla ci la bokk ñetteelu laaj bi kii dafay laaj mu ne ndax an nuur nuur dafa bokk ci turi sunu borom tabaraka wa taala wala ay melokaanam ñëw na ci alquran suñ borom tabaraka wa taala ne allahu nuuru samawati wal ard nee na it wa ashraqat al bi nuuri rabbiha mu doon masala boo xam ne nag ñàkkul ak juuyoo ci boroom xam-xam yi waaye du juuyoo gu yaatu nag ndax dafa bokk ci turi yàlla yi nga xam ne dañ ko koy saxalal ak melokaanam yi nga xam ne dañ ko koy saxalal mu doon aw tur woo xam ne day mel ne lafsul jalaala wala mu mel ne arrahman wala mu mel ne arrahim nga xam ne booy tuddee sa doom sax bu la neexee nga tuddi xam ne mën ngaa jël sa doom tuddi ko abdul nuur wala ban façon tur la dafa am boroom xam-xam yi li ñuy tuddee tasmiya idaafiya tur woo xam ne dafa bokk ci turi yàlla yi dëgg la ci la waaye di ko tudd moom dong mu beru doon aw tur faaw dañ koy méngale ak dara boo ne woon nuuru samawaati wal ard xam nga leeruk asamaan ak suuf kooku mën naa doon tur sun borom tabaraka wa kon nuur ci turi sunu borom tabaraka wa ci la bokk mën naa bokk ci ay melokaani mitam ndax mooy leeral asamaan ak suuf comme ni muy wax ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha waaye doonul nag tur wu beru fële nga xam ne man ngaa tuddee sa doom tudde ko abdu nuur loolu mooy wax bi gën a doomu bi gën a doomu ci li ci boroom xam-xam yi wax ibnul qayim mi ngi wax ci nuuni yana mu ne an nuuru min asmaihi aydan wa min awsaafihi subhaana dil burhaani nee na an nuuru min asmaihi ne ci turu suñu borom la bokk aydan wa min awsaafihi mën naa ñëw nekk tur mën naa ñëw nekk itam melokaan suñu borom tabaraka wa taala mu ne subhaana dil burhaani naam kon lu ci nekk mën na ko doon waaye ñi xam ne lam jublu ci nuur foofu mooy nuur bu nekk mudaaf maanaam dafa ñëw ñu lënkale koog dara nga ne leer rek bokkul nga ne ak leeruk asamaan ak suuf wala nga nekk ci asamaan ak suuf su loolu xësee ñëw moom loolu sun borom tabaraka wa moo koy jagoo waaye nóor kese kese noonu doonut loo xam ne aw tur wu beru la loolu bunt bu sew la ci bunti al asmaa wa sifaat yoo xam ne yu mata a xàmmee la xëy na baxtu bi gën naa gudd loolu waaye lu toll noonu rek lees ci mën a wax ci jotaay bu mel nii kon Omar mën naa jàll ci kii bi ci kanam boo amee cinq boo amee juróom rek mën ngaa dem bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah gannaaw bu ñaanalee cheikh bi yàlla yàggal ko suñu kanam te baril ay kemam dañu amoon benn xadis bu njàngoon ci dars bi mujj rek ñu bëggoon ci ak leeral ak xadis bu jiitu woon comme li ñu jëm ci wax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amul tanaaqud amul taarud te dañ ci gis dama ci gis ñaari xadis yoo xam ne bëggoon nañ ñi mu leeral ñu nan la ñuy lënkale ñaari xadis yooyu benn bi mooy xadis bi jóge ci abdullah ibni mas'ud radiyallahu anhu mu ne qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min nabiyin ba'athahu allahu fi ummatin qabli illa kaana lahu min ummatihi xawaariyuuna wa asxaab yaxuduuna bi sunnatihi wa yaqsiduuna bi amri ba xadis bi jeex am beneen xadis boo xam ne ci xadis yi ndikkoon jàng la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bi ñu ko jëlee ci euh, Abdullah ibn Abbas xadis bi dafa wax ne uridat alayya xadis bi dafa wax ne euh, an xadis bi mooy uridat uridat alayya uridat alayya al umam mooy walaysa maahu ahad waaw walaysa maahu ahad leer na ñaari xadis yooyu lañ bëggoon ñu ko xam nan lañ koy dëppale insha allah fa jazakumullahu ala xayran salaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñu ngi ñaanal Cheikh bi yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala sàmm fay ko yow dama am ñaari question benn bi mooy est-ce que parfois dañuy dégg ñu naan ku ku mës sëy bu bu bëgg a amaat jëkkër aajowul muy am wali est-ce que loolu wér na wala wérul beneen bi mooy est-ce que dessin bokk na ci euh, euh, suwar yi ñuy tere ak bu fekkee bokk na ci est-ce que nit ki dina mën a am jamono bu koy jàng dina mën a am ruxsa pour jàng ko wala déet jazakumullahu xayran asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ah, fadilatu cheikh dafa am ay mbokk yu nekk ca Côte d'Ivoire yónnee woon na fi benn laaj xaw na yàgg di ca weeru koor ga la woon waaye boobu ba tey amuñu woon fenn fuñ ko mën a laaje ah, mbokk yi dañoo wax ne ay mbokk dañoo nekk foofu di góorgóorlu ci sunna am loo xam ne daf leen a séparé muy heure julli yi ah, eh, eh, ci wàllu eh, tusbaar tusbaar daal duñ ko doo ñi nga xam ne dañuy njëkk a ñëw bu ñu jullee ba pare dañuy toogaat ab diir ñeneen ci des door a ñëw ñoom it def seen ak julli dem loolu nag séparé leen ñu bëggoon ci nag ku leen jox ay leeral ci eh, njëlbeenu waxtu wi fan la tàmbalee ñu ne ma woon nag bu ma leen ko laajal kenn ku dut fadil Cheikh Ahmed Lo salaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa rahmatullah wajama chamila baraka fii li ma bëggoon laaj daanaka ma ko yàgg bolaay ma koy faral di fàttali lu bëri moom mooy baax bi nga xamante moom nga def si asfaal kutubu sitta baax boobu ma ko bëggoon ma bëggoon jot ni may def ba jot ko wala moom laa bëggoon leerul la moom nga bëggoon moom laa bëggoon daal lu jot moom laa bëggoon jot lu xasula alayhi yani daam kenn mu ne moom la أنا أحتاج إليه يعني إذا أمكن طيب salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi naanal caax bi borom yokk xam-xam gi te barkeel ko musal ko ci seytaan dars bi ñu defoon ci ci bunt bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon xibaare waa Màkka di yëg ci kaw doj bi ab euh, laaj leen benn laaj bu mu leen njëkk laaj maanaam masalan ne leen ndax su ma leen xibaarewul ni am na arme buy jóge fii di leen song ci di ngeen ko di ngeen ko gëm ñu dëggal ko foofu da nga ne woon après bi ñu paree xadis bi da nga doon joxe jàngale yi mën a jël nga joxe bi ñu bi ñu mën a jëli ci bi mu taxawee ci doj bi maanaam pour utiliser moyen de communication yi mais euh, laaj bi mu leen njëkk a laaj da tëb pour kii bi ñu ci jële quoi jàngale bi bëggoon naa ko laaj ci biir dars bi mais aw ma woon jot bi après laajoon naa la ko nga ni ma mooy ci maanaam ci nga dëggal sa bopp dañu bëggoon ci ci exemple gën pour gën a mën a comprendre kii bi wax sa bopp boobu xam ngeen laaj bi li mu kenn comprendre li mu wax de des naa ko maanaam maanaam kii bi ngay joxe kii exemple yi mu joxe maanaam bi mu yéegee ci kaw daj bi ak laaj bi mu leen jëkk a laaj da nga ne après da nga ci joxe ay jàngale maanaam yan jàngale lañ mën a jële ci le fait que mu yëg ci kaw ak tam laaj bi mu leen njëkk laaj am na jàngale buñ ci boo boo ciy bi ci kaw. yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu yëgee ci daj leen woo ñoom ñëpp ñu ñëw. ñu ne mu yëg ci kaw. Mhm. foofu nga joxe ni pour mhm. joxe communication. foofu exemple maanaam jàngale bi ñu ciy jële mooy nga utiliser tous les moyens possibles. pour mhm. jaarale sa communication. mais avant mu leen wax ni yàllaa ko yónni daa am laaj bu mu leen njëkk laaj. maanaam ne ndax su ma leen xibaare ni am na armée buy jóge ci ginnaaw doj bi ñu song si leen mm-hmm. foofu après muccoo joxe ban jàngat lañ mën a jëlee ci laaj boobu mu leen njëkk laaj mm-hmm. ko tëboon aleykum mm-hmm. alhamdulilah euh, mbokk mi ci laajam bu njëkk bi dafay laaj ñaari xadis yooyu lan moo leen di boole benn bi dafay wax ne yàlla yónni wut ab yonent lu dul am na ñoom ko booleel ñoo xam ne ñoo koy dimbali ànd ak moom gëm ko ci beneen xadis bi nga xam ne ci la doon waxe ci juróom-ñaar fukk yooyu nga xam ne euh, bu ëllëgee kenn du leen rek reglanteeg ñoom kenn du leen xisaab ba muy wax ne dañ ko gaaralal xeet yi mu di leen gis nee am na xeet yonent boo xam ne day dekki ànd ak mbooloo am ñu dekki ànd ak ñaari nit am yonent bu ñëw àndut ak kenn wa yubaatu nabi wa laysa maahu ahad ñu dekkal ab yonent te fekk kenn àndut ak moom boo settantalee ñaari xadiis yi xamitam diggante yonent yi ak seeni xeet ak seeni xeet da ngay xam ne ñoom bokkuñu bokkuñu ay mission am na yonent boo xam ne yàlla da ko def yonent yónni ko mu dem ca nit ña di woote ji am yonent boo xam ne yàlla def na ko ab yonent waaye yebalu ko ci aw nit muy woote def koo jox sariya ab yonent bu ko jiitu woon mu téye ko yor sariya booba di ca tund moo tax boo xoolee ci xadis boobu muy tudde xawaari yoon yi def ne ma baas allahu min nabiyin foofu foofu rasul la boole ak nabi ndax yónni la wax fële daf ne wa yubaasu nabi wa laysa maahu lu jëm ci wàllu yónni moo tax boroom xam-xam yi ci li ñuy wax ci loolu dañuy wax ne wa yubaasu nabi wa laysa maahu ahad am na ci ñoo xam ne sax dañoo nas suñu ne kooku mooy aadama alayhi ci boppam ndax sunu boo xam ne yónni wuñ ko muy woote ci ci kenn nit ñoo xam ne dañoo nekkul ci tawxid mu di leen woo ñu ñëw ci tawxid amul woon nit ñëpp ci tawxid lañ nekkoon ba ni yonent yàlla nuux ñëwee shirk am ci la yonent yi door a tàmbalee di woote ci tawxid kon ab yonent buñ naan dafa yor foofa aw xeet ci la jiitu nuux donte ay yonent amoon nañ waaye yonent bu ànd aku xeet woo xam ne dañ naan suñ ko dekkalee day woo mbooloo ma ko gëm ñu topp ci moom yonent bu mel noonu amul woon su fekkee yonent bu ma boo xam ne nag kenn gëmu ko kenn topp ko su dekkee euh, kenn du ànd ak moom ci kaw ne ñii aw xeetam lañ loolu benn wax ci wax yu am solo yoo xam ne boroom xam-xam yi taw jiixe nañ ko ñaari xaddis yooyu ci la bokk waaye liy cosaan ci lu mel nii rek moo di ñu xam ne ñaari xaddis suñ bokkee wér ñaari xabaar yépp day ànd wér su ko defee nag la ca des li tax boroom xam-xam yi di gëstu nan la ñuy dëppalee ñaar yoo xam ne dafa mel ne daa am contradiction ci xeli nit ñi li tax ñu koy aajowoo mooy nit ñi man koo dégg ba mën cee jariñu waaye mm, lu jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam su wéree ne ñaar yëpp wér nañu rek contradiction munta am seen diggante moo tax loolu moom jullit bi da ko war a gëm déparé ko ah, loolu boroom xam-xam yi wax foofu nag manis na koo dégg moo di yonent boo xam ne dañ koo joxobu yonent ba noppi yebaluñ ko ci aw nit bu dekkee doo ànd ak kenn waaye koo xam ne dafa àndoon ko nit day ànd ak kenn su ko defee ibra bi liñ ciy foofu la fay des moo di ki nga xam ne dañ ko yabaloon muy woote sonn ci woote bi ba àggal kenn wuy siwu ko lu dul ñaari nit wala ñetti nit dong ànd ak moom kooku sa xel mën naa daal yow wootekat bi ne ñi la wuy si su bariwul woon it waroo am looy rëcc wala lu lay naqari ndax am na yonent boo xam ne ñaari nit dong la àndal bi mu dekkee wala ñetti nit dong la àndal ki nga xam ne àndut ak kenn nag kooku duggul ci duggul ci boobu kaadar ndax mel na ne ci kuy jàng siira siyarul anbiya amul benn yonent boo xam ne ci liñ xam yàlla yónni na ko muy woote te fekk kenn kenn kenn gëmu ko mën naa néew lool ba àgg ci ñaar ak benn comme ni mu ko waxee sallallahu alayhi wa sallam waaye ku kenn gëmul nag mooy ka wootewul woon kañ yebalul woon muy woote ji xaw ma ndax loolu leer na ci yaram lépp ndax ki nga xam ne daa masa sëy mën naa maye boppam déedéet ci lislaam moom jigéen mënta maye boppam kenn ki ku mësta séyi la dañ koy diisoog moom keneen ki ci def mas naa séyi dañuy sàkku ndigalam kenn ku ci nekk faaw ñu diisoog yow ba nga joxe sa xalaat sax d'accord waaye bu desee nag kan moo lay maye kooku mooy sa wàlliyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam laa nikaaxa illa bi waliyin wa shaahidayn ab sëy du wér lu dul dafa am wali mooy kilifa gi nga xam ne moo yilif jigéen ji di ko maye su fekkee baayam a ngi ci kaw suuf di dund kooko moo ci gën a yey ñépp su fekkee nekku te rakki baayam nekk fa wala magi baayam kooko moo ca sës su fa nekkul te fereeram nekk fa bu góor kooko moo ca sës su bokkam yépp jeexoon ba doom des ca te fekk doomam ju góor jooju mu kàllaf la su boobaa kooku mooy wàlliyoom sañ naa maye yaayam noonu lañ ko toppe ci ay bokkam ba ba muy jeex tàkk su jeexee ñu tànn ci jullit yi imaam ja wala kenn mu toog palaasam su boobaa moom mën naa tànnal boppam ne diw sàngam mooy sama wàlli kooko mayee ko parce que ay bokkam jeex na wala koo xam ne dafa ñëw ci diine lislaam te ay mbokkam nekkuñu ci diine lislaam su boobaa wilaayaam muy kilifteefam ci jullit yi rek lay mën a nekk su boobaa mooy tànnal boppam nit ne diw sàngam mii laa def sama kilifa moom may maye waaye jigéen ji mënta taxaw moom mukk maye boppam loolu mun mënta nekk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moo doonoon kilifa jullit yépp moo amoon foofu lu kenn sëñta am annabiyu awlaa bil mu'minina min anfusihim maanaam kenn ku ne moo la gën a yey ci sa bakkan kon ñi jéem a tegtaloo ndaw si dikkoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama laa bëgg a may sama bopp ñu jàpp ne ndaw sa kon mooy kilifa boppam guy maye dañoo xoolul ki muy waxal ku mu doon kooku mooy kilifa ñëpp loolu moo tax ba mu ko jëlut moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam it da koo maye ndax mooy kilifa am loolu man sañu moo ko yow sañoo ko ci doomi jàmbur yonente bi alayhi salaatu wasalaam képp moo sañ loolu moo tax loolu ci ay xasaa isam yim jagoo ci la bokk dessin muy nataal yi nga xam ne moom la aadama di jëfandi di jëfandikoo ci loxoom mu ne ndax atteb photo lay yor ok kooku mooy mooy photo dëgg-dëgg sax yeneen yi ci def nga xam ne appareil koy def loola mooy leneen waaye li nit ki def ak loxoom nag kooku mooy foto mooy nataal bi nga xam ne taswir bi nga xam ne sharia day tere ñu def ko loo xam ne lu amug ruux la wala lu am jëmm ñi koy yett loolu mooy lu doom aadama di defak ak loxoom dëgg dëgg dëgg waaye su fekkoon ne li appareil bi di def la loola moom lañu war a laaj ba xam ndax photo la wala déet waaye li muy def ak loxoom moom loolu photo la ndax ñi nga xam ne dañoo toll ci jàng mënees na leen cee defal ruxsa waxu kay boroom xam-xam yi wax nañ ne ruxsa mën na cee am ñu defal leen ay nataal comme ñoo xam ne dañuy jàng médecine walla yu mel noonu tax mën ñoo liggéey lu mel ne nit fekk ci kawsu lañ ko liggéeye wala ci xeetu matière boo xam ne beneen la ngir ñu mën cee jàngi cëri doomu aadama mën cee xam ne lii mooy lii mooy lii lu mel noonu ginnaaw boroom xam-xam yi wax nañ ne mën nañ ko cee settee mën naa nekk exception ku yombal kon dañ ciy dégg ne kiy jàngale di nataal dara ca tableau ba wala ba koy nataal ca téere ba lu mel noonu mën naa doon lu woyof waaye na doon nag luñ sàmmoon teeg mu dëppoog teeg yi ni lislaam du ñëw defee ci kanam ay gone nit koo xam ne ku rafle la wala ku sol lu baaxul wala mu def ko ci téere wala yu mel noonu te fekk solul sér yu baax te doon jigéen wala mu doon góor lu mu ci mën a doon kon sàmmonteeg teggini lislaam day jaadu ci lu mel noonu laaj bi suñ mbokk mi wax ne dafa jóge Côte d'Ivoire ñuy laaj ci juuyoo gi nga xam ne day am ci seen diggante ci waxtu tisbaar loolu moom xam naa laaj bi daa jóge Côte d'Ivoire waaye mënoon naa jóge Dakar itam ndax defe naa ni ñoom itam ci waxtu tisbaar ak juyoo gu yaatoo yaatoo yaatoo ngi fi am na jàkka yoo xam ne danañ julli bu yàgg yeneen jàkka toog ba jëmi jamono ñu door a nodd wala wala defe naa loolu am na fi <coughs> foofu liñ ciy wax rek moo di waxtu julli moom léegi xam kañ lay tàmbali jafeetul ko waxuma la dara waaye jële dana site internet yeeg ci mel noonu waaye montar yi ñuy liggéey rek yu ci ëpp léegi wala yu ci bari waxtu julli yu xóot ñoo ci nekk yoo xam ne yu sew la yoo xam ne heure bu nekk mën ngaa xam kañ la su ko defee su waxtu wa xasee jot nag waxtu wa dugg na mën naa continuer ba keroog waxtu wi génn loolu lépp waxtu la maanaam suñ jëloon tey jii ñu ne une heure et quart ci tisbaar mën nga jàpp ne une heure ba trois heures lépp ci biir muxtaarum tisbaar ci la dugg kon ki julli une heure wala une heure et wala une heure et demi kooku ci biir waxtu la julli ki julli deux heures et quart ci biir waxtu la julli waaye nag mu defoon lenn mooy image bu ñaaw bi ñu fexe ba mu dañ mooy waxtaan ba am wenn waxtu woo xam ne bu jotee ñépp noddandoo julleendoo loolu moo gën a rafet ci image ay jullit yoo xam ne ñépp sax ñoo bokk foofu menn ngir muñ nekk xam ngeen ne amoon na ay jamono ca Makka ngir yi fa nekkoon muy ñeenti ngir yi dafa amoon lu ñu tudde ay maqaamaat maqaamaat yi lu mel ne ay tànt yu ndaw la waroon kaaba gi ñu ne lii mooy maqama bi nga xam ne ngirum Abu Xanifa ñoo ko moom lii mooy maqaama bi ngirum Malik moom ngirum Shaafi ngirum Ahmad ibn Hanbal noonu lañ feqi woon kaaba ga ñenn ñi ci nekk ci seen fiq dañuy xool seen waxtu julli su jotee su nodd jotee ci ki waxtoom di jëkk a jot danañ daal di nodd genn nodd nag la daan doon waaye suñ noddee ba noppi dañuy wax ne kon waxtu ngirum sàngam day jot na ñooñu daal di dem ci seenum maqaama daal di julli suñ toogee ba ne tuuti moom ma noddoon mu daal di yéenewaat ne waxtu tisbaar jot na ca ngirum Abu Hanifa ñooñu jóg dem julli bu des tuuti mu defaat ko ba keroog ñeenti ngir yëpp di julli ba noppi door a dem li nga xamee ne nag dem nañ ba xam-xam dugg ci ca réew ma e, tawxiid dugg ci faak xam sunna xam lislaam ca lañ essence e, njënk yooye nga xam ne moo waroon kaaba ga ñëpp ñu bennle leen ci wenn waxtu nodd ak wenn waxtu bi fii Sénégal xam ngeen ne amoon na jamono ba bu yàggut rek nit ñëpp wenn waxtu lañ doon julli dañu jekk ba deux heures ñu noot bu deux heures et quart jotee ñu julli biñ demee ba war a delloo si nit ñi ñu julli ci njool benn waxtu ndax njool benn wax it dafa am muxtaar maanaam moom moo gën julli fi awalil waxtu laa chaque ne julli ca njool benn waxtu woo moom moo gën waaye ci kaw nag mu bañ a tàqale jullit yi kon damay wax ne foofu jaadu woon a liggéey bu yaatu boo xam ne ñi yoroon programme boobu dañoo waroon dem ci jàkk yépp baña bàyyi benn jàkk bañ a benn imaam wala benn jàkka ñu naan bii jàkka bu ndaw la ke imaam déedéet def programme boo xam ne dañuy dem ci ñépp waxtaan ak ñoom wala ñu dajale leen fenn foo xam ne imaam yépp a koy teewe yëgal leen ne kat waxtu tisbaar waxtu sàngam la tàmbali jeex waxtu sàngam te xam ngeen ni julli ci njëlbeen waxtu moo gën julli ci leneen lu mën a doon suñu waxtaanee ci loolu ba ñépp ànd d'accord ci ñuy noddandoo di julleendoo su ko defee jàmm ne bee mooy su amee kuréel bu ndaw waxtaan rek jékki-jékki ne noonu da dañuy nodd waxtu wi di julli waxtu wi ñeneen ñi ci des def suñ defoon loolu mooy indi mooy indi anam gu ñaaw googu nga xam ne moom la ñuy gis euh, su fekkee noonu la amee Côte kon nii la amee Sénégal saafara si nag noonu dong la jéem waxtaan ba dëppale ko ci ci benn waxtu. am na téere bi mbokk mi di laaj. Euh, فالكتب الستة مناهجها وجهود العلماء في خدمتها moolaguñ ko waaye am na téere bi mi ngi fi insha allah balaa yàgg itam am nañ yéene yi ñi mool ko mu génn insha allah mbokk mi laaj bi mu laaj sànq ci yonente bi alayhi salaatu yéegee ci kaw ba ñëpp seen ko mu présenté bañ xam ne moom la mu ne leen ndax su ma ne leen woon ab armée moo jóge fii di song dëkk bi ndax ba ngeen ko gëm ñépp ne ko waaw kooku lim ci jublu sallallahu alayhi wa sallam li muy jàngale foofu moo di wootekat bi war naa garder jikkoom axlaaq war naa garder siqatu naas confiance di dox seen diggante ak moom kenn ku nekk xam na ne moom alayhi salaatu wasalaam ku ñu wóolu woon la ba tudde ko al amin ànd ak loolu téewul bi mu ñëwee ba taxaw war leen a woo ci loo xam ne tey jii lañ ko mas a dégg mos ñu ko dégg lu jiitu loolu téewul mu fàttaliwaat leen moom mooy kan ci seen biir ne leen kat di man mi may tudd ki ngeen tudde woon amin ñu ne waaw mu ne su ma ne leen woon ab armee ngi ñëw di leen song ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko bu baax a baax a baax mu door leen a wax nag ci leen di wax su fekkoon ne daa doon koo xam ne ci ay caaxaan dañ ko xam wala ay kaf wala koo xam ne day wax lu amut wala ay jikkoom baaxut walla maar day taali ku ku dëng la su taxawee di wax loolu duñ ko déglu sax wala su waxee ba daaneel ñu ne ko ah yow yow de loo wax mën naa doon ay caaxaan man naa doon dëgg waaye ñoom ñépp àndandooñ ne ko yow loo wax dëgg la mu doon leen nag lii laa wax nag mooy woo leen ci woo leen ci tawxid bu sell moo tax kii woote moo xam imaam la moo xam jàngalekat la moo xam ci diine la moo xam sax kuñ xam ci sunna la war naa góor góorgóorlu lépp luy jam personnalité am mu wattandiku ko d'abord ngir yàlla ci boppam moo ci jiitu ndax yéene ji sun borom tabaraka wa moo war a tax muy def loolu ñaareel ba digganteem ak doomu aadama yi ak daawa bi mu yore ndax nit mën naa toll foo xam ne ci liggéey bi njuumteem nekkatul njuumtal boppam waaye dafa yóbbaale ay doomu aadama dafay yàq sax daawa bi kon ku mel noonu euh, day yàq daawa bi moo tax ñoom ne zallatul aalim zallatul aalam loolu lañuy wax maanaam njuumtel benn borom xam-xam mën naa doon njuumtel monde bi yëpp faf su fekkee noona la nag kon garde jikko ji fexe ba say wax nga xool li ngay wax lu mu doon mu doon dëgg say jëf nga xool nu mu demee jëf leen teg doomu aadama yi seeni alal seeni der seeni moomeel nga maandu ci lu mel noonu mooy doon li nga xam ne mooy li jaadu ci lay demee ba ki doon ab noonam sax nga xam ne da koo bañ amaana bokkul ak moom jubluwaay wala bokkul dara moo tax mu bañ ko lu tee moom dana xam digganteem ak boroomam wala digganteem ak ngegenaayam su fekkee gëmul dara mu xam ne kii kat euh, dëgg la juboowu maak moom bokk ni itam suñ jëm waaye xam naa ne kii ku dëggu la li muy wax lu mu gëm la li muy wax daf cee nekk su ci nekkuloon ba tey bàyyi na ko wala dem na yoonam bu yàgg yàgg melokaan woowu kuy góorgóorlu ci diine ku ne da ko war a fàggu te wattandiku li nga xam ne mooy dal ñu baree bari <coughs> mooy di góorgóorlu ci diine ci côté yépp ci wàllu pas-pas ngay góorgóorlu ci wàllu sunna ak bidaa nga fexe ba kenn du la fekk ci bidaa wala yu mel noonu waaye boo duggee ci jëflante ak doomu aadama yi ci seeni alal wala seeni moomeel ak yu mel noonu jalgati daal di dugg si lu mel noonu ci boppam nit ki daf ko war a wattandiku parce que day yàq day yàq liggéey bi laaj bi mbokk mu bind fii dafa wax ne ñu ngi ko tàmbale ci Cheikh Ahmad Lo Lo ji nag da ko bind ak laam ak waaw waaye ñoo xam ne bind yi mu wér wi ginnaaw da nga koy bind ci arab ak xaada ci ànd maanaam loos la xëy ku koy wax ci wolof moom loo rek nag boo xasee ba koy bind li ngay bind ak xaada ci ànd ndax mu ngi jóge ci laws alluwa ji ñuy bindee alquran ñu di ko wax lawxu bu dee ci kàllaam ak arab euh, noonu lañ koy bindee laam waaw xaa euh, pista bu yàgg yàgg la jarul a tudd waaye sunu maam ju yàgg am na man bu mu ci way boo xam ne daf ko delloo ca fasante woowee jóge mu ne kaana lahu lawxun falamma su'ila an laqabin ashaara lil lawxi qilaa kaana lahu lawxun nee na nit la ku yoroon àlluwa falamma suila bañ ko laajee an laqabin ñu ne ko waaw yow noo sant mu joxoñ àlluwa ji mu ne nii nee na loola moo ko andil moo ko andil santu lawx wa ba mu yàgg wolof yi ñu yàq naan ko loo <coughs> kon ci àlluwa ji ñu bind alxuraan ci la dellu am na sun mbokk mu xaw a day wax ne buñ ko bindee ci laam waaw loolu mooy ñi nga xam ne dañoo dugg ci lislaam te fekk ñi sant loo ñoo leen ci dugal mu ne dañ ko war a bind ndox ndax mu séparé wu ba duñ ko xam waaye loolu xeetu racisme la nekk woo xam ne njëlut nee na dafay laaj euh, nee daal saa bu jógee ci këram bu jógee ci liggéeyam ba dugg këram day fekk ñaari waajuram daal ñu nuur rek ci seeni werd su leen nuyoo su ne asalaamaaleykum nee na duñ ko duñ ko tontu dañuy joxañ rek def nii comme ni ko ñeen ñi def mu ne te xam na ne ñàkk a nuyu googi ñàkk a fay nuyoo bi ci lislaam lool bàkkaar la ci ñoom mu ne ndax moom day continuer rek di leen nuyu ñuy gàddu bàkkaaru ñàkk koo fay wala day soppi nuyoo bi bu ñëwee rek jaar ci seeni sant te bañ a nuyooti nuyoob lislaam bi ndax ñu baña am bakkaar ci loolu ala xaal mi ngi xalaat xalaat xalaatin wu rafet ndax bëggut ay waajuram ñi gàddu bàkkaar loolu xalaat xalaatin wu rafet la waaye nag yow ci sa bopp li la lislaam sant mooy boo dikkee fekk ay jullit yu toog nga nuyu leen nuyoob lislaam soo ko defut yow ci sa bopp da ngay am bàkkaar ca loola te jàpp naa ni nit ki nag lu mu yéene yéene jeneen doomu aadama bàkkaar du bëgg ne naa yanu bàkkaar bi te juusaa yanu ko maanaam nit mën naa bëgg nit sax ba ne nag nangu naa sax faf jël li des mu jël li des ci sama dund tam toog fi man ma dem nit man naa àgg foofu waaye nag naa yanu ay bakaaram nag kooka moom risque la boo xam ne kenn du ko def ku ànd ak sam xel doo ko def ndax bisub bisub fayantoo ba moom foofa moom ak mbokk amut fa daa du fi xafi sóori fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun kenn du ne ana diw aw askan amatul su boobaa yawma yafirru almaru min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughniihi bis la boo xam ne bu jotee amatul ndey amul baay amul rakk amul mag kenn ku nekk da ngay daw boo séenee sax yaakaar ne am na lum la nar a fayu si loo xam ne yoreel nga ko ku ngay daw su fekkee bàkkaar noonu la toll na kenn du ko yarul kenn kon li jaadu mooy yow saa boo dikkee ne leen assalaamu alaykum wa suñ noppee ci seen werd en tant que koo xam yàlla xamal na la xëy na ci fànn googu loo xam ne xamuñu ko nga waxtaan ak ñoom mais man de bis bu ma ñëwee asalaamaaleykum laay wax waaye du ngeen ma tontu te delloo ab ñàkk a delloo ab nuyoo ci ku nuyu loolu bàkkaar la te jàpp naa ne fii ngeen toog nekk ci werd ñàkkul ne tuyaaba ngeen ci bëgg wut ba ak di gàddu bàkkaar nag yooyu waruñoo mën a ànd laa biire yu mel noonu defe naa ne bu yàggee mën naa dem ba ak soppiku am ci seen doxalin woow yi wallahu taala alam wa raddu ilayhi aslam joxaatal ñeneen insha allah alhamdulilah wasalaatu wasalaam bi di ñaan yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér di ñaan yàlla ñu ci déggee tamit ñu may dégg ak man ñaar laa ñaari question laa benn bi mooy dama dama waxtaan ak benn mbokk mu won ne ma comme yonent sallallahu alayhi wasallam istixfaar daan def mu ne ma téeméeri war ñu kaa weesu foofu ñu war a yem ah, beneen bi may laajte rawaatib rawaatib bi ñuy def fukki fan fukki fukki wax fukki waxtu ak ñaari fukki julli ak ñaari ñu war a def. fukki rakk fukki rakk ak ñaari toftal bi laa doon daal ndax tamit comme fajar ji bu fekkente ni jullee woo ko jàkka ñaari rakk yooyu ngay ñàkk ci fajar ji ndax bu fekkee da nga da nga koy fay yan yan salaa boole wala boole wu ko ci si ak ñaari. bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah fa jazakum allahu alxayr dama amoon ñetti laaj yu ma bëggoon a laaj benn bi mooy ci ngëneelu alquran li ñu koy wax ne day topp nit ki ba bu tàbbee àjjana ñu koy wax ne ko jàngal sa kër mooy aaya bi nga mujj jàng ci alquran may laaj ndax kon foofu ki mokkalul alquran dana mën a yëg ci àjjana yu kawe wala déet beneen laaj bi mooy ci wàllu sàmm la jëm tuuti ñun ñu yor ay xar wala ñuy yore xar dangay jël sam xar yóbbu ko ci xar pour tëbu ñu fayeeku la mañ laaj ndax loolu dagan na ci lislaam wala déet beneen bi léeg-léeg da ñëw àjjuma fekk noddukat bi nodd imaam ñëw ma ndax da déglu nodd gi ba mu pare nga doog julli wala da ngay julli ndax déglu nodd sunna la boo paree mën a fekkee tàmbaliwaayu xutba bi nga déglu ko fu mu laaj bi leer na am déet leer na waaw jazakumullahu xayr salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah seex bi ñoo ngi lay nuyu di lay ziar man nag ci wàllu julli lay laaj le microphone bi xaw tuuti xaw waaw ci wàllu julli maanaam lay laaj wàllu julli julli waaw mhm. maanaam rakka bu sànni ndax sujoot war na ci rakka bu sànni rakka boo xam ne maanaam élimaan dafa sujoot mhm. maamum bi ruko fekk siwul imaam fekk imaam bi imaam jóg mhm. continuer jullem mu ngi mel ni moom ci wàllam am na ruko bu faat eh sujoot bu faat fi mm-hmm. imam silmale moom dafay war a mottali rakka boobu comme rakka bi manqué na farata mm-hmm. su ko defee nag ci rakka boobu ndax sujoot war na ci bu ci sujoot waree bar sujoot lay doon baada salaam walla qabla salaam loolu moo doon laaj bi salaamaaleykum wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, cheikh ñu te aar te barkeel xam-xam dama woon ñetti laaj ma bëggoon laaj ci bi jëkk mu nekk ci wàllu jigéen boo xam ne dafay niqaab lu fekkee ne ñun ci sunna toll ci réew mi xam ne dafa bëri yoo xamante ne dañ koy ŋàññ ci ci mbokk yi nga xamante ne ñooy ci wàllu sunna ndax jigéen boo xam ne dafay niqaab nga dëkk ak ay nit yoo xamante ni fa ngeen nekk këru location la ndax maslaxa la ñu doon jigéen boo xam ne day bàyyi niqaab bi donte dafa nekk ci biir kër gi mën a nekk nit ñi loo tollook at te duñu xam xar kanamam wala ñu deme noonu ak ndax maslaxa la tamit ñu li ñu jàngale ci ngénte ci wàllu sunna ak li nga xamante ne moom la suñu aada xam nga xam ne dañuy bàyyi ba juróom-ñaareel fan bi ñëwaat xale bi di siiwal bi rey xar xar mi mbokk yi ñu waxtaan ak géje gise boobu ñu daal di e, togg añ ak yooyu ñu daal di koy jëfandikoo loolu ndax maanaam léegi fekkee ne dañoo bàyyi loolu ndax léegi di def nga xam ne dañuy rey xar mi daal di saraxe yàpp mi noonu rek ñi nga xam ne mooy mbokk yi bu ñëwee dañuy fekk mbir moomu ñu ñu def ko ñoom ñu def ko ba noppi nga xam ne des mu indi ay diggante yu jaxasoo ci wàllu mbokkoo rawatina ay mbokkoo sax yoo xam ne daf ci dagg ci wàllu mbokkoo deret ak ndax ki nga xam ne muy góorgóorlu sunna sañ na gis jigéen boo xamante ne nii maanaam colam baaxul waaye gis na ci moom ay jikko yu baax mu am sañ-sañu ne da koy fas yéenee ngir jéem a defar ci moom yi nga xamante moom la yu bari ci wàllu lislaam soxla ci moom ci wàllu solin ak amurin ak yu demee 嗯。salaamaaleykum wa rahmatulah bisimilah wa salaatu wa salaam ala rasulillah docteur dama am ay laaj yu noonu laaj mu jëm ci koorum kàttangal ci benn xadis bi yàlla na dafa wax ne abdul siyaam baada ramadan shahrullahi muharram ci benn xadis mu ne ma min amalin fi ayaamin afdalu fi hadi fi hadi ashratil hijja beneen bi mu wax mu ne ahabu siyaamu ilallah siyaamu daawud léegi ngëneel yooyu mu wax foofu bu fekkee dafa am boo xam moom lay jiital ci kanam ban la loolu laa la laajte am wa rahmatulah wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah Euh, laaj bu njëkk bi ci wàllu istixfaar mu di jéggalu sunu borom tabaraka wa taala yonente bi alayhi salaatu wasalaam soññee na ci lu bari alquran soññee ci lu baree bari yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne danaa jéggalu ci bis juróom-ñaar fukki yoon ci beneen xadis bi mu ne téeméeri yoon kii laaj mu ne kon wareesuta mën a weesu téeméer ok loolu am na boroomi xam-xam yu ko wax nga xam ne dañ ne ñaari lim yooyu yonente bi alayhi salatu wasalaam wax kenn waru ko mën a weesu ndax juróom-ñaar fukk la wax ak téeméer waaye dafa am ci borom xam-xam yoo xam ne dañuy tegtaloo su fekkee jaamu yàlla ji genn la maanaam zikkër bi benn la ñi tuddal ko ñaari lim yu bokkut am nga ñaari choix ba ñett bu la neexee nga jël bu jëkk bi mooy di ko def juróom-ñaar fukk bu la neexee nga jël téeméer bi te mooy la gën a mat bu la neexee ngay def léeg-léeg nga def lii léeg-léeg nga def lii ñu dolli ca ne soo gisee ñi wax la ab lim wax la beneen lim xamal ne lim bi taxul ñi wax waaye baril ko moo tax ñi wax ñi daal koy dugal kon ci azikrul mutlaq ñu ne kon jéggalu ci boppam bokk na ci yi nga xam ne daa nekk mutlaq mooy tënkuñu ko kon loolu li muy mooy soo weesu woon téeméer bi du lor ndax su fekkoon ne lim bi ci boppam yàlla gi bi kon benn lim rek lay yor kon benn rek lay doon waaye ginnaaw xas na ko jéggi nag mën nga ko weesu te bépp zikr boo xam ne dañ koy tudde mutlaq nga xam ne mën nga caa weesu lim booba lim booba lay weesu loola ko lim yow jarutul ngay xam na mu toll loola sa waxtu may rek danga koy istixfaar bu jeexee nga dem sa yoon waaye jarul ngay wut kurusug junni wala kurusug ñaari junni toog ko wàññi ndax sun borom tabaraka wa taala mi ngi koy defal moom xam na ñaata la moo tax ci laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu wax mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala na ku ko wax fukki yoon ci bis ku ko wax fukki yoon ci bis am nga yool bu tol ne ku goreel ab jaam jaam boo xam ne dafa bokk ci doomi ismail alayhi salaam maanaam nit ñi gën a tedd jàppoon kenn jaam ca ñooña nga fere xaalis ba goreel ko wala nga dox ba goreel ko am nga yool bu tol noona ci fukk yi nga ko wax mu teg ca ne amut kenn ku indi ca bis boobee lu gën lim indi lu dul koo xam ne da koo wax lu ëpp lim ko wax waaw ah, kon daal nay ubbi foofu bunt ba mooy man nga caa dolli loo ca bëgg a dolli soo ko cay dolli nag bul lim teewul nag euh, ki nga xam ne dafa jël téeméer bi yam kooku moo gën a génn xilaaf xam ne astaxfirullah bis bu nekk mu def ko téeméeri yoon yam ca kooku génn na ca juyoo ga am ñi naan ndax dañ koo tënk ci lim ak tënkuñu ko ci lim moom daal suñ ko laajee mu ne man daal yam naa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yemoon kon foofu laa yem mu jeex ki def loola jaanam wàcc na te yaraange munta jëm si ci kawam nag benn yoon waaye nag mu bañ a mu bañ a nemmat wala muy weddi keneen koo xam ne jël na beneen ngir ci yooyu ma wax di ko jëfandikoo mooy léeg-léeg nga boole leen ñoom ñaar ñëpp di def bi di def bii wala nga tënku ci juróom-ñaar fukki ndax sax na te loolu la sa waxtu may wala nga jàpp ne euh, mutlaq la maanaam yëmul ci ab lim lim bi nekkul maqsuud kooka itam jarut nga di ko nga di ko nenat moom itam bunt la daal boo xam ne bunt bu yaatu la wet goo ci jël rek njariñ la ñaari rakkaay fajar euh, dafa naa ne laaj bi su fekkee dégg naa ko dëgg dëgg ndax mooy ci rawaatib yi la bokkam ngeen ndax euh, ni ko laaje wax ne su ko faatee mu di ko fay ndax day bokk ci yooya wala bokk ca mu faat gi ñi koy fay ak mu ñàkk koo faat mu di ko julli ca waxtoom loolu wuute wut ci atteb sharia bi kon laaj bi mooy ndax ñaare lakkaay fajar ci rawaatib yooyu ci la bokk wala wala bokku ci euh, li gën siiw ci ñi koy lim mu nekk fukk ak ñaar képp ñaari rakkaay yooyu dañ ko ci dañ ko ci génne moo jëmi witr ci boppam waaye li ñu tudde safa mooy ñaari rakkaay yi ngay julli gannaaw gee wala ñeenti rakkaa gannaaw gee loola dañ koy limaale ci biir loolu ñeenti rakka yi jiitu tisbaar ak ñaar yi ñu julli gannaaw ñeent yi julli takusaan wala ñaar boo ko boole yépp mën na laa jox fukki rakka ak ñaar yoo xam ne loola la ñuy tudd rawaate bi li gën a dëgër mooy ñaari rakkaay fajar bañ sa bokk ki nga xam ne euh, ëllëg dañ koy wax ne ko jàngal di yéeg iqra rattil wartaqi li nga mokkal ci alxuraan del jàng di yéeg mu ne ki ci mokkalu dara xanaa kon du àgg ca martaba yu kawe yi ca àjjana xadis bi loolu lay tegtale waaye ñu xam ne li am solo ëllëg mooy dugg àjjana yàlla nañ fa yàlla dugal maanaam kii kër këri fii ci àdduna ba ëllëg ñu ne ko yow daal ci waa àjjana nga bokk kooka moom amatul problème muskila moom amatu ko daraja ya nag ndax kii ca kaw étage ba lay dëkk ak première deuxième troisième wax nañ ne fu ca gën a kawe moo gën a bakkane ci àjjana kon nag koo gën a bakkane ka foofa lay doon munuñoo jàpp ne am na jullit boo xam ne it mokkalul dara ci alxuraan loolu jaaduwut ñu am maanaam faaw war ngaa mokkal ci dara ci alxuraan loo xam ne war nga cay mën a tajwid di yéeg ba lu bon bon nga àgg premier étage deuxième étage sax bopp su fekkee ku mokkaloon nag ña mokkaloon alxuraan na nañoo yéeg nag ba àgg ca kaw li kaw nag koo xam ne bokk ak ña ca def fañ nekk waaye ala kulli euh, ñu xam ne hadis bi li ko tax a jóge mooy leeral ngëneelul alxuraan ak màggaayam ak itte joo xam ne jullit yi war nañ ko jox alxuraan ci di ko jàng di ko jàngal seeni doom di ko mokkal seeni doom ku ko ci mën a mokkal di ko mokkal loolu mooy itte ji tax alxuraan loolu jóg su ko mokkalee ba àggal mu góor góorlu mu doon loo xam ne lu muy jëfe la loolu mooy njariñ lu mat la ci alquran ba jullit bi mën a dund alquran ci pas-pasam ak jaamu am ak jikkoom ndax doom aadama mën a defaru mën a baax loolu moo waral soññee gi ci soññee gi ci euh, mooy li ci am amaana nit ki mën na ne kon ku dem àjjana sa xarit yee ñi nga amoon ñoom ñi mokkal alquran dañuy yéeg ba ca kaw hmm? su ko defee nga dëkk feneen foo xam ne ñooñu moom jeex na duutoo leen gis umu kay waa àjjana yatazawaroon maanaam dañuy siyaareente ña féete kaw am nañ droit ci wàcc ci ñi leen féete suuf ñëw di toog di waxtaan ak moom ci seeni kër ba mu neex leen ñu ñibbi waaye nag ñi féete suuf mënuñu leen ñoom ñi yéeg ca kaw ndax suñ yéegee ca kaw dañuy yëg ne ñoom seen mbir kat ndekete am na lu ci wàññiku waaye fañ nekk xéewal gañ nekk moom kenn ku ne fa nga lu ko ëpp moom te kay ñëw di la seet si lam fa bàyyi munu koo melal moom maanaam munu laa wax ne la man maa la gën le parce que lam fay fekk munta kii kon loolu dafa doon ay mbir yoo xam ne eh, ñaan gi rek mooy yàlla na suñu borom tabaraka wa taala yóbbu ajjana la ñëpp eh, ñi nga xam ne dañuy yóbbu seenub jur di ko eh, jox geneenub jur ngir ñu sëyeeg ñoom ñi am luñ cay fayeg yu mel noonu doonut loo xam ne lu xaraam la waaye ci njëg yi nga xam ne dañ leen a sib ci la bokk maanaam ci njëg yiñ sib ci la bokk waaye doonut loo xam ne lu xaraam la eh, dugg na jàkka ji ki dugg ci jàkka ji fekk ki nodd di nodd nan la war a def ndax day daal di taxawal julli ñaari rakkaam taxiyatul masjid wala day ànd ak ki nodd wax li muy wax dañuy wax ne ñaari ndigal su fekkee ñoom ñaar dañoo xëccoo jenn jëm te am na noo xam ne bu ko defee mën naa jëfe ñaari ndigal yépp kon noonu lay def moo gën muy def benn ba bàyyi ba ca des bi nga dugg see fekk ñuy nodd ndigal li jëkk a ñëw ci yow mooy ida sami'tumul mu'addina fa quulu misla ma yaqul su ngeen déggee nit ka di nodd wax leen lu mel ne lam nodd beneen ndigal li mooy ida daxaltumul masjid fala tajlisu xata tusalliu rakatayn su ngeen duggee ci jàkka ji bu leen toog lu dul da ngeen a julli ñaari rakka kon foofa la jaaru pour nga mën a boole ñaari ndigal yi mooy boo duggee jàkka ji bul toog taxawal ànd ak kii nodd di wax la muy wax bu noppee nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñaan gi nga xam ne moom la ñuy wax gannaaw nodd allahuma rabba hadihi daawati tamma ba mu jeex soo noppee nañ nga julli sa ñaari def nga ñaari ndigal yépp su ko defee ñaari tuyaaba yi mën a daje moo gën dugg rek daal di kàbbar ànd ak tey noot daal lay faat wallahu su fekkee ne dafa ànd ak imaam ak jamoo dikkal ko dañuy wax ne jamoo jóg maa imaam yóbbaale na ko maanaam maamoom ci julli koo xam ne imaam da koo fekk mu nekk ci biiru julleem di sa julli am jamuj bu ko dab mu noppi kooka imaam yóbbaale na ko su fekkoon ne rakkaam dafa yàqu sax mu noppi jóg di julliwaat beneenu rakkaam su noppi benn façon su waru ko loolu mooy li gën a dëgër ci ngiri boroom xam-xam yi donte am na ci ñoo xam ne dañoo wax ne maamum dana sujjóot waaye sahwul ma'mumi yaxmiluhu al imaam maanaam imaam moo ko yóbbaaleel ki nga xam ne dafay def niqaab la wax niqaab mooy jigéen ji nga xam ne day muuru ba muuraale kanamam loolu lu sax la lu dëgër la danga nit ki dana nekk ci diggante yoo xam ne sax day gën maanaam donte nit dagan ci muuraayu jigéen fi mu yem li ci dagan nga xam ne lu ko yées mënta nekk mooy mu muuru ba xar kanam ak tënkam des loolu moom sañ na koo feeñal su fekkee nag amul benn xeetu taar bu mu ca def waaye bu ca defee taar it nag muur ko da koy daal di war su muuree kanamam lépp nag def na lu baax am na boroomi xam-xam yoo xam dañ ne sax loolu waajib la maanaam dafa war waaye jàpp ma ne loola mooy li gën a dëgër ci ngir moomu jàpp ma ne li gën a dëgër mooy war goo xam ne niqaab war na ko waaye nag mën naa gën de mën naa doon itam lu baax lool jigéen ji ko bëgg def nag dëkk ak ay nit ñoo xam ne xëy na loolu tumuraanke na ci ñoom wala mën nañ ko ci saboote wala mën nañ ko ci wax dara kooku moom lañ koy dénk mooy bu mu leen faale bu mu yëg ne juddu nañ ndaxte ñay def loola yemale wuñ ko ci loolu maanaam yow mi muuru sax ba sa xar kanam say ténk def da nga dem foo xam ne loola dañ la cay saboote yow mi nga xam ne da ngaa ne ci biir kër gi di jullee noo xam ne xamuñu ko sax mën nañ la cay saboote yow mi nekk ci béréb yi bàyyi sa sikkim am na béréb yoo xam ne dañ la fay saboote yow mi sol xeetu cër solin yi sax fi béréb mën nañ la caa saboté suñ ko waxut sax ngay dégg su fekkee foo yëgee ne nag lii nit ñi mënuñu ko accepté nga bàyyi loola loolu bu yàggee dangay bàyyi lépp kon li nga xam ne yàlla da ko bëgg mu doon lu baax nga bëgg koo def doomu aadama ya lañ cay wax bul ca geer ni ko euh, al imaamu Shawkaani di waxe ñi nga xam ne dañuy fekk ndigalul yàlla nga nekk ca ñu ñëw di la eh, am kàddu yi ñu lay wax ca lu mel noonu nee na ñooñu tawadda wudu'an wa salli na da leen di jullee julleeg maanaam mel ne nekkatuñ fi jubluwul da ngay dem julli julleeg la maanaam jàppe leen ñoo xam ne amuñu sax faf waxiinu imaam Shawkaani rahimahullahu xeetu ngénte ci boppam shariat islaamiya li ñuy tudde ngénte mooy rey ab gàtt bu dee jigéen bu dee góor ñaar ak wat bopp bi ñaar yooyu ñooy ngénte kese nag bu dee tur wi kooku xaqi al la waaye duggul ci ngénte ngénte mooy li nga xam ne dañ koy def ci bisu juróom-ñaareel bi tudd bi mën naa dem ba bisu juróom-ñaareel bi nga door ko déclaré bu la neexee bis bu la neex mën nga ko ca déclaré bu la neexee bu juddoo sax nga ne day man de sama doom juddu na nangam laa ko tudde te fekk bisu juróom-ñaareel bi ñëwul kon kooku bukk la ko aqiq waaye ci ci ahkaamul ci la bokk ci atte yi léegi nag ndawal gi ci boppam su fekkee rey na lim rey ba noppi ci bisu juróom ñaareel bi nan la koy def boroom xam-xam yi nee nañ yàpp ngénte ak yàpp tabaski ñoo bokkeeb àtte dana ci lekk bu ko neexee mu sarxe ci sarxe sarax ku ñàkk lañ koy jox bu ko neexee mu jox ci dëkkandoo yi ak bokk yi mooy ñi nga xam ne ñàkkuñu waaye lañ kon ñetti àq ngoog ci waa këram ak boppam lu jëm ci ñu ñàkk ñi lu jëm ci dëkkandoo yi ak bokk yi moo xam jege nañ wala sori nañ léegi nag ndax bu ko reyee ba àggal da koy séddale fenn fu ne mu yónnee fa benn mbuus wala ndax da koy togg rek jékki-jékki woo ñëpp ñu ñëw dajaloo lekk ko benn yoon loolu moom sharia duggut ci yu mel noonu sharia lépp lay wax mooy li ngay sarxe wala li ngay maye wala li ngay lekkal sa bopp yaa xam noo koy toggee du dugg ci naan la na ko togg ci ci nag na ko lakk soo noppee na nga woo nit ñaag na ko yónnee mbuus def ko ci mbuus bu weex wala mbuus bu ñuul wala yooyu sariya du dugg ci détail yooyu kon bu la neexee mën nga togg lépp yëgal ko ñi ngi koy yëgal ñu doon ay miskiin nag ay bokk ak ay jegeñaale ak ay dëkkandook ñoom ñëpp ñu ñëw bokk toog lekk ko mu jeex ñu tàggoo dem waaye nag wattandigul dugal fa lu ñuy tere nag responsabilité la nga dajale nit ñi ba àggal wëlbatiku ñi fay def yenn yi ñu fay def ci xeeti po wala xeeti jaxasoo góor ak jigéen loolu day soo ko defee sa responsabilité la boo xam ne da nga doon wut yàlla fas gàdduwaale ca bàkkaar loolu moo tax ñu bari ci nit ñi ñuy sit dajale nit ñi ci lu mel noonu di ko séddale rek du dem waaye su fekkee mën nga ko contrôler nag ba nit ñi mën a daje te góor ak jigéen du jaxasoo xeeti po ak i tëgg am su boobaa dara ci wallahu ki nga xam dafa bëgg a takk soxna sum ne am na jikko waaye daal colam melut na mu war a mel maanaam daal du buuru fekkee dégg naa li mu bëgg a wax ala kulli xaal euh, ki nga xam ne dafa am jikko te muuroogul loolu mën naa nekk ndax am na ñoo xam ne bëgg nañ lu baax yar nañ leen ci lu baax waaye xamuñu xàmmeewuñu am na ñoo xam ne xamuñu ne muuru farata la ci ñoom yëguñu ko yëguñu ne julli ak koor nim nekke farata ci ab jullit bu jigéen noonu la jële muuraay teg ko ci boppam ak ci yaramam nekke farata ci moom am na ñoo xam ne yëguñu loola am na ñoo xam ne dem nañ ba yëg ne muuru farata la ci ñoom waaye dafa dañ ne muuraay ci bopp la yam nga xam ne jàpp nañ ne buñ muuree seen bopp bu leen neexee mën nañoo sol ab jiin sol ab chemise bu xat def yaramu neen di dox ci mbedd bi muur seen bopp fekk ñàkk a xam a ko waral yëguñu ne muuraay gi lislaam di wax muuraayu yaram la waaye du muuraayu bopp day muur bopp bi ba muuraale yaram wa kon ki xamul su fekkee ni kii boroom jikko la waaye muuruwul waaye ñàkk a xam moo tax kooku mënees naa am ci moom yaakaar waaye léegi da nga gis kët koo xam ne li nit ñi tudde borom jikko mooy ku baax neex deret bu bariwut lu muy mer xuloowut xeexut buñ ko santee dara mu def ko ñu ne kooku boroom jikko la kooku mën naa xam ne muuraayu farata la ba noppi ne loolu man defuma ko parce que yenn yi daal affaire pratique la yoo xam ne dafa xaw a teeng dafa xóot dafa mel nangam yi mel noonu kooku jàpp ne loolu amul contradiction ak jikkoom ji mu yor ku mel noonu nag boo ca duggee moom mën nga am problème ki nga xam ne dafa dafa théorie affaire bi ba gëm ne mën naa baax te du du ca boole lële boo ca duggee defe ne da koy soppi mën nga caa dugg te doo ko mën a soppi kon lu aaja teey la ak lu aaja gëstu la ak waxtaan sax nag ba mu yëg ne bokk na ci condition yi ànd gi ne nii mu mel bàyyi yaramam wi ci bitti daf koy dindi ndax loolu lislaam daf koo xaraamal moog naan sàngara moog ñàkk a julli moog ñàkk woor ñoo yem loolu dafa war a leer ci bopp yi ñu xam lu xaraam lu xaraam la tudd def yaramu neen di dox ci mbedd moo yor kaasu di ko naan ñooyam ci jigéen kon loolu daf ko war a xam mu leer nañ boo ciy dugg nga dugg ci loo xam te bañ a dugg ba ci biir nag nga naan daf ne ma woon dana def ni dana def naa nangam wala dama yaakaaroon ne dana mën a def ni dëgg la nag mënuñoo wax na sëy la boo xam ne charia daf koo xaraamal loolu mënuñu ko maanaam bu ko takkoon te du muuru it kenn du wax na sëy bi baaxut sëy baax na waaye dugg nga ci nag bu mag a mag ndax lislaam bu fekkee daganal na nit ki takk koo xam ne du ab jullit kon jullit bu pratiqué wul diineem taxul ñuy wax kon mëneesuta xaraamal sëy bi mukk waaye nag euh, ci wàllu irshad muy orientation duma la biir nga takk koo xam ne ku mel noonu la euh, lu jëm ci wàllu kooru ngàtt nga ci ni ko mbokk mi waxee ci soññee gi yonente bi alayhi salaatu wasalaam soññee ci woor shahrullahi almuharram ak fukki fan yi nga xam ne dafa jëkk ci weeru tabaski mu ne jëf ju baax ci fukki fan yooyu dara melu ni ak woor koor gu mel ne kooru Daawud alayhi salaam mu wax ne mooy li gën ci xeeti koor yi mu bëgg ñu toftaleel ko yooyu nag lan moo ci gën loolu moom du yomb ndax lenn lu ci nekk daa am fu muy waxee kuy màng weer di ko woor daal gannaaw weeru koor weeru muharram moo ci gën noonu nga ko dégge fukki fan yu dajaloo itam nit ka di ci jaamu yàlla xamal ne fukki fan yi eh, yi jëkk ci weeru tabaski mooy yi ci gën ci fu nit ka di tàbbal ak jaamu yàllaam su fekkee ne ku bëgg a koor la nag ngir gi dundam na xam ne la ca gën mooy kooruk daawud bu wooree tey dog tey bu wooree tey dog tey boobu soo ko tànnalee sa bopp yeneen yi ci def yépp jaratut nga ci def itte yu bari parce que yóbbaale na ko loolu moo tax mu gën ci parce que boo ko tànnoon doo mën a ñëw jël weeru muharram nga damay woor lépp ndax soo wooree lépp danga nga da nga damm koorug da nga doon woor kon ki tànn koor googu tànn la li gën ci xeeti koor yi nga xam ne nit da koy saxoo ki bëgg a tànn itam fukki fan yi gën ci at mi dugal ci ak jaamu yàllaam su boobaa ci lu bokkut weeru koor mooy fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski su fekkee daa bëgg maa nga weer nag woor ko moom itam na xam ne gannaaw ramadaan weeru muharram mooy wi ci gën kon noonu la ñuy déggee xadis yi ñëw ci loolu waaye doonut loo xam ne da naan bii moo gën bii bii moo ci tegu yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu mu tudd ngëneelam xamal ne dafa am gëneel moo tax mu wax ko sallallahu alayhi wa sallam kii dafay wax ne eh, ki nga xam ne da doon dawal oto far rey nit te tëyu ko ala kulli xaal euh, ki nga xam ne dafa rey nit te tëyu ko ci atteb sharia moom li ñuy wax dée moo ko war dée mooy li ko war su fekkee ne kim rey doomu aadama la ju wér te xam na ne moom moo ko rey kooku dañ ko daan xayma ci téeméeri gëléem xool la muy jar ci alal mu génne ko jox ko bokk yooyu nga xam ne bi waaju faatoo ñoo ko war a donn loolu ñu boole ko ci lañuy lañuy donn su fekkee jéggaluñ ko ko suñ ko ko jéggalee nag kooku moom daf koy wàcc su mënee woor ñaari weer itam mu gën sartuñu ci ak tegaloo waaye loolu ci li mottali kafaara ga ak jéggalu bakkaar ba ci la bokk ndax bakkanu doomu aadama dafa dafa diis njëgu gëléem nag moom dafa yemul fenn waaye su boobaa mu xool mu xool la digg dóomu ña ko koy atteel dañuy xool la digg dóomu duñ xool yi ci gën a yomb waaye duñ xool yi ci gën a cher yi ci diggante ba lañ parce que njëgu gëléem moom yëmut fenn fan yu yàggul yii rek am na kon dem ci toolam euh, fële ca Najd mu dina woon ay gëléemam yoo xam ne euh, benn bu ci nekk lu njëgam gàtt gàtt mat na million ci riyaal million céréale nag mooy téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom yu tegal fi ci nun fi nu nekk xam nga gëléem yu mel noonu ku la bëgg ne nag da nga ci xayma téeméer su boobaa loolu du sotti moo tax faaw dañuy xëyma li nga xam ne mooy li gën a suufe eh, at teb isbaal ci wàllu tubay maanaam tubay ji nga xam ne dafa gudd ba muur dojor bi xaddis yi rot ci wàllu isbaal muy wat mbubb wala wat ak làmbaay wala koddaay ay xaddis yu leer la yu bari yoo xam ne yu xuppe ci sawara sax a ngi ci ma zaada ala alkaabayni fa fi naar ci wàllu tubay nag cheikh bakar abu zeyd ci téeréem bi muy tudde azratul mu'min moom dafa gën a dëgëral foofa ne tubay bokku ci mu doon wax joo xaw naa tumuraanke tuuti waaye nee na ci boppam bokku ci waaye mbubb ko tax a jóg ak koddaay muy isaar bi nga xam ne dañ ko daan làmboo ci jamono yooya loolu moo warta gudd ba jéggi dojor waaye lañuy wax ci wàllu orientation de mooy jullit bi li gën ci moom ndax boo xoolee xadiis yi ni muy généralisé ndax ma zaada alal kaabayni lépp loo xam ne dafa muur ñaari dojor foofu yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxul mbubb waxul tubay waxul koddaay maa la jëfandikoo baatu maa nag mooy lépp loo xam ne dem na ba muur ñaari dojor yi su boobaa loola fa fi naar maanaam loola sawaraa ci gën a yeey su fekkee lu mel noonu nag bañ a séparer mbubb ak tubay mooy li gën ah donte ki wax loolu nag boroom xam-xam la bu ñépp respecté ci wàllu gëstu ak ci wàllu xam-xam ak ci wàllu maandu noonu lañ ko jàppee moo tax wax la bu ñu respecté te ay dalil la ko teg waaye nag booy tànn tànnal la nga xam ne moo gën te moo gën a sori moo gën a sori xilaaf mooy bañ a séparé tubay ak mbubb gëm ne daal looy sol lu ne da nga góorgóorlu ba sa ñaari dojor moom doo ko muur kii dafay laaj ma ne ñan ñooy siit yi ashiatu rafida lan mooy seen dëgg dëgg dëgg dëgg ñoom daal ci ak gàttal ay nit lañ yoo xam ne ab kuréel lañ buy askanoo lislaam boo xam ne juyoo nañ lool ak alquran ak sunna alquran bii yor di ko jàng ak di ko jaamoo yàlla dañoo gëm ne dafa manqué saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa dañ leen di yéefarloo jàpp nañ ni gannaaw yonent bi ñépp dañoo tubbi ba mu des lim bu néew ñii ne fukk ak ñeent la am ci ñoom ñoo xam dañu juróom-ñaar a fa des am ci ñoo xam dañ ne ñeenti nit képp fa des gannaaw yonent bi sallallahu alayhi kon saxaaba yi dañ leen di ŋàññ dañuy wax ci ñoom wax ci ñaaw tàmbalee ko ci ummul mu'minin Aïcha radiyallahu ta'ala anha Omar ibn al-Khattab Usman ibn Affan Abu Bakr as-Siddiq ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ña nga àjjana sax bàyyi wuñ leen xeetu wax wu ñaaw bu nekk danañ ko wax kon ci buntub alquran ak ci buntub saxaaba yi seen réer gi gën mag foofu la gën a waaye lépp ñu ngi ko teg ci bunt boo xam ne buntub li ñu tuddee wilaaya la foofu mooy mumtalax bi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee kan moo ko waroon wuutu ñu jàpp ñoom ne Ali ibn Abi moo ko waroon wuutu nit ña dañ koo tooñ nangu euh, jiite ga suufeel ko def ko nangam lor waa kër yonent bi def leen nangam yu mel noonu la ñuy tasaare ci nit ñi ba gëmloo leen ko te li ñuy wax ci lu mel noonu dara amu ci dara jegewu cee doon sax dëgg Ali ibn Abi Talib radiallahu taala anhu ak ku ko xam yar bañ ko yar ak fam toll woon ci kër yonent bi ak yeneen saxaaba yi fiñ toll woon xamoon na ni Abu Bakr Siddiq amut lenn lu Aliyun xalaata xëccoo ak moom ndax kii ca mag ña la kii ci gone yi la bokk te diine lislaam doonul diine joo xam ne diine doon nante la ci wàllu askan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkoon ne dafa bëgg Ali ibn Abi Talib wuutu ko day wax ne kii na toog sama gannaaw te suñ xoolee li am ci ay texte lépp danaa lay wax ne su fekkoon ne am na ku muy wuutal kon Abu Bakar Siddiq lay doon parce que ki nga tëlee ne ko kay jiite nit ñi ci julli koo wax dëgg yàlla loolu doyoon na sëkk man yaakaar naa ñi wax ne Ali ibn Abi moo fa waroon a toog su fekkoon ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu tëlee dañu Alioune kaay julli kon ñoom danañ gën a mën a am fuñ jaar waaye Alio ngi fi ñépp ngi fi mu ne ana Abu Bakar ñu ne mi ngi ni mu ne kaay jiite as soxna ñëw wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko bis sàngam na nga dellusiwaat mu ne ko su ma la fi fekkul nag ki solo xadis bi mu ne ka annaha taani l mu ne dafa mel ne ndaw soosu li muy junj mooy waaw su ma la fekkoon nga génn àdduna nag mu ne ko su ma la fi fekkul nag mu ne ko soo ma fi fekkul fekk fi Abubakar loolu dara gën koo leer su fekkoo ne dañuy wax ne teg texte am na bu naan na ma kon wuutu kon Abubakar Siddiq radiallahu taala anhu lay doon waaye ànd ak loolu ci maandu teg ahlu sunna ñoom dañuy wax ne teg texte amut yonente bi alayhi dafa bàyyi mbir mi ak jullit yi ñu tànnal seen bopp ki nga xam ne moo leen war a jiite waaye na ko yàlla bëggee moo di ñu tànn abu bakar moo tax yonente bi wa yaba allah wa rasuluhu illa abu bakar yàlla ko yonentam gàntu nañ keneen ku mën a doon ba mu des abu bakar as siddiq loolu moo tax ndigal la dikk dëppook iraada sharciya bi ak iraada kawniya bi ni ko sunu borom tabaraka wa taala bëggee tam dëppoo ak diine Abubakar Siddiq jiite leen ànd ak loolu ñooñu dañoo jàpp ne ñooñu ñëpp tubbi nañ ay yéefar la ña nga sawara di leen rëbb di wax ci ñoom wax joo xam ne ñaaw la mooy seeni melokaan euh, seenum ngir itam fitna lañ koy tasaaree maanaam fuñ tasaaroo fu nekk fu ñu bari fu nekk nañ gëme ne saaga ak xaste ci seen diine ci la bokk ci lañ gëm ne tuur deret it pour forcer nit ñi ci seen diine ci la bokk kon ay nit lañ yoo xam ne niti fitna lañ yoo xam ne ñu mat wattandiku lañ ñoo xam ne yàq ñoo leen tax a jóg te ngi fi tàmbali di tasaaroo allahu taala alam soo amee keneen ku ñu bëgg a jox defe naa bekki asalaamaaleykum wa rahmatullah cheikh naa dama fi amoon ñetti laaj yi mu bëggoon a laaj bi si jiitu mooy dafay dellu ci laaj bi bi njëkk bi mbokk yi laajoon bi aju ci wàllu eh, yonent bi nga xamante ni yawmal qiyaama dina ñëw te kenn du ko kenn du ko topp. Mm-hmm. ba nga tontu dafa mel ni dañ ki doon xamaale ni rasul ak nabi seen wuute da dox seen diggante seen ñaar moo ne rasul mooy koo xam ne dañ ko yónni fu mu waar nit ñi nabi nag mooy koo xamante ni maanaam yónnuñ ko ci nit mbir ma dafa yem ci moom rek foofu maanaam dañ fay gis. yeneen waxi borom xam-xam ñu wax ni rasul mooy koo xamante ni dañ koo digal maam pour mu jottale waaye tamit joxaale ko sharia bu bees nabi nag moo koo xamante ni moom dañ ko yónni nag joxuñ ko sharia bu bees léegi ñaari lañ koy kiwee ute googu ak moo ci benn ki daal so moom ñaareel ba mooy dafay xaw a jege xaw ma nag ba xam mbokk moom loolu la ci jublu woon ci laajam bi mooy mor ci ñi nga xam ne dafa dugg ci jumaa ji mu tombeeg aljuma ji maa imaam bi di xutba kooku ba xam léegi moom imaam fekkee dafa tombeeg imaam bi di xutba ba xam moom dafay taxaw euh, day continuer julli gi maanaam ragal tombeeg ñi nga xamante ni moom mooy xutba bi pour ànd ak ñamte mooy nodd bi ñaar yu ban la ci war def ni fekkee dafa ànd ak noddkat bi ba pare bu waree julli day tombeek ñi nga xamante ni mooy imaam bi du xutba te ñoon si xadis yi saa sallam muy tere bu ñuy xutba ni ñu wax léegi ñaar yooyu ban la ci war a def ba xam day bàyyi topp nodd bi julli julleem pour mën a fekkee xutba bi wala day ànd ak noddkat bi rek bu paree mu daal di euh, julli ñetteel ba mooy ñi ci aljuma ji ba léegi su fekkente nit ki dafa ñëw fekk jumaa ji fees mu nekk ci biti ba xam moom day ñëw rek toog fekk fekk imaam yi mu ngi xutba ba xam day ñëw rek toog wala day foog balaa muy toog mu julli maanaam kon ci bit biti gi ba xam day yor àtteeg ci biir gi gis ni tamit nit ki ci fekkente ni ñu dem bay taxawal julli ga dañuy sàpp gi nu mu nekkee ci war a ànd ak ci biir ga ba xam loolu mën na ci jëlee ni kon ci biti gi tamit day am àtteeg ci biir ga ba nga xamante nit ki bu ñëwee du am sañ-sañ toog ay mu julli ñaaraat fekkente ni ñetti laaj yi jaar na loolu la woon alhamdulilah nabi ak rasul borom xam-xam yi ñaari wax yooyu nga wax rek moom lañ ci am xam nga lu gën a bari ñun ci jataay yu mel ni duñ dugg ci jataay ne mii ngir nee nañ nangam yi ne nangam yi ne nangam rek léeg mu jaxase ayib dañoo yem ci rek ne ki nga xam ne dañ ne ko baa baasa maa baasa allahu min nabiyin ne foofu lim fi junj mooy ñi nga xam ne dañ leen a nii ki nga xam ne nag wa yubaasu nabiyu wa laysa maahu ahad foofu tudd fi baasa ñu yëg ne kon kooku la boo xam ne yebaluñ ko ci wenn askan waaye beneen wax bi ci des te su fekkee dañuy dëgëral mën naa doon bu dëgër moo di ne nabi mooy ki nga xam ne yàlla wax yu na ko yebal ko itam ci ay nit waaye ci beneen sharia ci la sukkandiku muy sharia bi yonent ba mu nekkal wala yonent ba nga xam ne euh, da koo jiitu mu nekk ca loolu wax la boo xam ne wax boroom xam-xam la boo xam ne mënees na mënees na gaa sukkandiku waaye foofu moom la ci ëpp solo daal euh, nekku ko mooy boo xoolee ñaari baat yi sax ci wàllu luxa annabi mooy kuñ xabaare koo xam ne dañ koo xibaare am na luñ ko jox ba mu dégg ko rasul mooy koo xam ne dañ ko yebal ne ko demal defi nàngam boroom mission la ñaar yooyu ci baatu loxo bi rek dafa yóbbaale seen kii moo tax lenn ci boroom xam-xam yi wala lu bari ci ñoom bu ñuy seet bi ci gën a dëgër léeg-léeg ñu dellu ci fànnuk loxo gi waaye boo ko gëstoo bu ca biir dëgg dëgg dëgg jooyoo gi doonut koo xam ne ku am solo la wala meññeet mi doon meññeet moo xam ne mu am solo la ndax ki dugg jàkka ji ajjuma fekk ci noddu di noddu defe naa question bi su ngeen ko seetloo euh, daraa ngi ci ci fiq moo di ne nit kaa ngi noddu imaam a ngi toog ci minbar dugg na ndax day toog day day taxaw ànd ak kii nodd ba mu àggal su ko defee imaam tàmbali xutba muy julli ñaari rakka walla day julli ñaari rakkaam daa di toog ndax su imaam tàmbalee di xutba mu mën a toog déglu xutba bi li tontu bi foofu mooy àtte bi wuute wut ki dugg jàkka ji fekk ñiy nodd ak kum mën a doon mu boole ñaari ndigal yi def ko moo gën ci moom mu def benn bi bàyyi bi ci des te fàtte ne imaam di xutba nit kiy julli loolu firiwul ne moom dégluwut xutba bi nekkul ci ay po nekkul di wax nekkul ci ay caaxaan bi dalili ne soo duggoon jàkka ji fekk imaam di xutba nooy def da ngay toog wala da ngay julli da ngay da ngay julli Sulayk bi mu duggee ci jàkka ji yonente bi sallallahu alayhi di xutba mu ñëw rek daal di toog daf ne ko eh ndax julli nga mu ne ko déedéet mu ne ko jógal nga julli ñaari rakka mu jóg julli ñaari rakka te fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi xutba kon julli gi ay rakka wuute wut ak imaam di xutba kon ku dugg imaam di xutba ajjuma da war a julli ñaari rakka ki fekk ñi nodd na ànd ak ki nodd su àggalee mu julli ñaari rakkaam toog déglu xutba bi loolee mu ko wax nag li ci mat a bàyyi xel la mooy wal wal yatajawwaz fiihima mooy na ko na ko gàttal muy riwaaya bu am solo ci buxaari muy ida daxala ahadukum al masjida wal imaamu yaxtub falyusalli rakaatayni wal yatajawaz fihima su kenn ci yéen duggee jàkka ja fekk imaam a ngay xutba nee na na julli ñaari rakaata waaye fal ko bul fa taxaw rek taxaw bu continuer ba imaam jeexalu xutba am nga continuer di julli foofu kon day gàttal ñaari rakkaaya da koy waaye fal riwaaya boobu nag li tax mu am solo lool lool lool mooy daa am ci fuqaha yi ñoo xam ne dañoo bëgg a wax ne wax boobu mu waxoon Sulayk ne ko jógal julli ñaari rakka loolu Sulayk moo ko jagoo ñu ne lu tax ñu ne ah, Sulayk dafa doonoon ku ñàkk mu ñëw toog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jógal julli mu bëgg su taxawee di julli nit ñi xool ko gis sagar yim sol su ko defee buñ noppee mën koo sarax loolu wax ju doy waar la ñu loolu moo tax mu ne ko jógal waaye riwaaye bee lim lay wax mooy ida daxala ahadukum kenn ci yéen su duggee ci jàkka ja wal imaamu yaxtub te fekk imaam a ngay xutba fal yusalli rakatayni kon kooku xam nga ne su moomu ko ñépp a ko bokk te it yonente bi sallallahu alayhi wa bu gisee ci julli bi koo xam ne xam na ni kii dafa ñàkk yeeyoo ñu sarax ko lu tax digganteem mu mën a julli ba sëlmal ne soleil kaay mu ñëw taxaw fi wetam mu ne jullit yi seen mbokkum jullite ngi sa sarax leen ko comme nam ko defe woon ca ñooñu jege woon nimaar woo leen nit ñi dajaloo ñu sarax leen bilaal lal mbàjjam ñu sarax leen ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam kontaan ñu jox leen ñu dem loolu mën na ko kon jarul mu nekk ci biiru xutba di naan ko jógal taxaw ndax ñu gis sa sagar yi ba mën laa sarax kon loolu moom wax ju doyadi la donte leen na ci ay fuqahaa wax nañ ko su jàkka ji feesee fu sàppe ya toll fu mën a doon foofa ci jàkka ji la maanaam jàkka dañ koy tabax nii rek ñu xam ne jàkka ji ab atteem fii la yem waaye nag su xasoon fees atte ba moom daal nay génn jàkka ja atte ba daal nay génn jàkka ja foo ñëw fekk sàppe ya toll fa xamal ne foofa la jàkka ja toll kon day daal di jël attey jàkka bala ngaa toog da ngay ñaari rakka sauf maanaam lu dul salaatul iidayni lu dul salaatul iidayni maanaam julli kori ak julli tabaski su fekkee ne yàlla daa dogal imaam jullee ko ci biir jàkka ji sàppe yi génn ba ca terrain ba soo ñëwee doo julli ñaari ràkka lu tax mooy julli googa la cay cosaan du mooy jullee ko ci jàkka ji waaye mooy jullee ko ci terrain ba te ko koy jullee ca teeree ba sunnaa luñ ko muy julli ak la lu jiitu loola kon foofu bu ñëwee rek day toog kon foofu tobb bu am solo ngi fi fii ci jullit farata gi jàkka ji mooy cosaan li sàpp yi génn ba ca bitti yóbbaale ko bu dee julli ayit gi nag cosaanam mooy ca teeree ba lañ ko war a jullee te la amut foofa waaye baawaan na ba dugg ci biir jàkka ji su boobaa jàkka ji mënta yóbbaale la doon cosaan di ko jox ay atteem defe naa loolu leer na wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain insha allah laaj yi fi des danañ ko boole ci jotaay amin ya